Mamadou mbay coordonnateur des anciens de l'APR administrateur de di parti aussi euh, depuis sa création en 2008. waaw parrainage bi euh, liggéey bi vraiment rafetlu nañ ko parce que déjà euh, suñu xoolee rek euh, suñu suñu un des éléments par exemple Yakham Seck mi ngi ci mi ngi ci quatre fiches de mi ngi ci quarante quarante fiches yoo xam ni déposé na ko. man également fan yi rek euh, bu subaa incha allah dina déposer suma parrainage donc ñun anciens yi ñu ngi ci parrainage bu baax a baax a baax au niveau communal aussi euh, ñu ngi féliciter le directeur Siré Dia parce que on a gis nañ ko bërki démb mu déposer cent quatre mille parrains au niveau de la commune euh, au niveau département Thiès déposé na quatre vingt et mille parrainages donc mi ngi avancé ñu ngi sant yàlla ci parrainage bu baax a baax am nañ ci confiance. conséquence politique bi d' abord mooy que euh, responsable boobu am na représentativité léegi li ci des mooy que responsable bi assumer ses responsabilité muy Siré Dia je veux dire loolu nag mooy que mu yaatal mu yaatal bañ a yem ci groupe am rek mu yaatal boole ci ñëpp d'ailleurs fan yi maa ngi doon fustiger attitude bu mu amoon parce que ci euh, investiture bi. dafa dafa omettre dafa fàtte boole anciens yi ci yëf yi ak quelques bi ñuy def mobilisation loolu aussi du taxawaayu kilifa su fekkee euh, par la force des chiffres ak par la force de capacité de mobilisation bi mu am euh, nekk na kilifa li ci des mooy mu mottaliku woo ñëpp uuf ñëpp ànd ak ñëpp comme ça ñu mën a au moins jox euh, le président victoire euh, ci élection 24 février yi di ñëw incha allah bon tirer dans le même sens ci parti bi amul loolu aussi euh, il faut que ñu reconnaître ko mais dans l'ensemble nit ñaa ngi ku nekk de ton côté yaa ngi liggéey mais li gënoon quand même ñun ñu def benn bloc ñun ñu def benn bloc ñu booleendoo lépp comme si rajo loolu mu def noonu ci Tanor loolu moi je trouve que rafetlu ma ko li gënoon mooy ñun waa Thiès yëpp ñu tas ñu dajaloo permanence départementale ñun ñëpp ñu boole suñu yëf jébbal ko euh, def bloc bi yëpp jox ko président Tanor mais quand li mu def liggéey bi rafet na mais loolu day wane toujours que nii ku nekk daal yaa ngi wane sa bopp sa su ku nekk di wane sa bopp nag dañuy gën a affaiblir dañuy néewal doole maanaam euh, li gënoon daal mooy ñun ñëpp ñu ànd euh, dajaloo permanence départementale image boobu man moom a gënaloon maanaam ñëpp joxante loxo foofu ñëpp dajaloo yaa xam bi am 40 fiches indi du mbay bi am 40 fiches indi si Dia bi am 104000 indi ñeneen ñëpp indi ñu toog woo le président Ousmane Tanor jox ko ko loolu image boobu dina frappé nit ñi dina wone ni ñun ànd nañu ba fas yooyu ne nañu jox le président victoire mais cela n'empêche que nag comme mënuñu ànd aussi que ku nekk aussi yaa ngi liggéey ci sa côté. Euh, xam nga xam nga booloo aussi comme ni nga ko waxee olof wax na ko booloo mooy doole. man toujours damay woote pour ñu booloo booloo bi même suñu mënul ànd à cent pour cent nañu créer benn cadre boo xam ni ñi gën a nekk ay responsable nañ ci daje nañ def benn directoire ñëpp di si daje ñu mën di waxtaan comme sa ñu dóorandoo defandoo lépp li ñuy def loolu moo ñu gën a mën a may ndam mais comme mënuñu am loolu je reconnais que parti bi nit ñi ànduñu loolu aussi euh, ñàkk ko wax président aussi dafa mel da nga koy nax sa ñun man ma Mamadou mbay ak anciens yi ma toogal yaa xam Pape et cetera ñun bi ñuy nekk fii parti bi booba suñu wootee réunion fukki nit ak juróom-ñaar matul ñu ñaar fukki nit yéen ñi taxaw maam fay mën ngeen ma seede yow mbay Sam mën nga ma seede donc ñun parti bi li si xew yëpp xam nañ ko donc suñ ñëwee ba fii nag nit ñi jaxasoo nit ñi kenn àndatul loolu daf ñuy metti loolu aussi dañ ci interpeller le président de la république di ko wax aussi que anciens yi ni leen di traité euh, kontaan nañu ci parce ñu ngi jublu ay élections nañ leen gën a surtout le président président na gën a gestu anciens yi parce que ay nit lañu ay jàmbaar lañ yoo xam ni ah euh, bëgguma ñu geler seen ak seeni activité se nii ñu leen di traité su yàggee mën nañu jële seen activité au premier chef man man Mamadou mbay parce que nag euh, ça fait dix ans euh, ñu ngi jàppale président président am na droit jox ñeneen parce que il faut mu yokk mais nag ñi fi nekkoon nañ leen delloo njukkal gestu leen bala ñoo xam bala ñuy décourager découragement boo xam ni dañuy geler seen activité loolu aussi bëgg naa président jóg ci président nag laay interpeller directement du ma interpeller beneen beneen responsable parce que ñi fi nekkoon ñii ñëpp ñii ñuy wax responsable ñun duñu responsable ci ñun parce que ñoo defandoo yëf yëpp euh, yàlla dafa dogal ñoom am ay ndomba tànk ñun am ñu tànk donc ñun le le suñu premier responsable suñu responsable c' le président de la république donc je m' adresse au président di ko wax ni anciens yi kontaan nañu ci situation bii ñu am investiture kenn boolewu leen ci sa su continuer dañuy geler seeni activité loolu aussi je tenais à le dire très honnêtement parce que anciens yi ñoo ma délégué pour ma wax loolu donc loolu aussi bëgg na bëggoon naa président xam ko jël les conséquence de cela bala muy bala muy gën a tardé premier message mooy ah, euh, parti APR ni mu doon doxee avant ñuy gagné nañ delluwaat foofu parce que olof daf ni jubbu bi la fal soo ko watee folleeku avant nan lañ doon def nañ doon daje avant nañ lañ doon def suñ amee activité ñëppay teew maanaam su yaa xam amee activité toute la commune ñëpp ñëw tous les responsables de la commune ñëw si yaa xam loolu nañ ci dellu nañ dellu cosaan beneen bi mooy nañ yéene ku nekk na yéene sa morom jàmm. nga ku nekk yéen ku nekk li nga am beneen bi mooy ñi nga xam ni amuñu sa am ci àq muy anciens yi ñooñu nañ dem wax ak président ni ko ñii nañ leen dimbali jox leen ci àq bi seen àq ñu jox leen ko comme ça ñu sawaraat ñëw jàppale président de la république. beneen message bi ma ciy lancé mooy que suñu àndee su fekkee joxente nañu loxo ànd yàlla mën nañu may ndam cette fois-ci parce que élection locale yi passé suñ cumulé woon euh, euh, voix yi nga xam ni Benno Bokk Yaakaar moo ko am ak yeneen frange yi nga xam ne dafa génnoon ci Benno Bokk Yaakaar muy pa kiiwu Thierno Sall boobu li su Thierno Sall bi suñ ko boole woon au moins Thiès Nord dañuy nekk le maire donc ànd boobu c'est fondamental donc maa ngi lancer un appel à ce que ñu ànd ñun ñëpp pour mën a jox le président victoire di lancer appel aussi à l'opposition que ñu ñun ñëpp ñu defandoo campagne bi si jàmm ak salaam mën nañ campagne ba ku nekk li nga bëgg am nga am ko ci jàmm ak salaam ñu bañ a indi violence dans le pays aussi di ñaax aussi waa APR yi ñu bañ ñu bañ a céder à la provocation de la violence parce que euh, loolu day yàq réew mi sa réew mi suñ ko yàqee ëllëg duñ ci mën a nekkati ëllëg duñ xamati suñ doom yi fu ñu leen di dugal donc loolu laa doon lancé di di di féliciter aussi le président ci investiture bi ñu ko def keroog ci Dakar Arena di di féliciter l'ensemble des responsables de Thiès di féliciter aussi euh, l'ensemble des responsables au niveau de Benno Bokk Yaakaar yenn wax ni liggéey bi rafet na di féliciter également bala ma ko fàtte suñu frère Abdou Aziz Mbaye parce que lui aussi euh, mi ngi abattre un travail certes bëggul ñu koy wax parce que moom c'est un homme de l'ombre mais liggéey boo gis rek bu réussir que ce soit au niveau organisationnel ci partie bi comme loolu amoon Dakar Arena réussite logistique bi yëpp ak organisation événement bi Abdou Aziz mbay moo ko def donc ñu ngi koy féliciter di ko xamal ni c'est une fierté pour ñun Thiessois yi c'est une fierté aussi euh, pour ñun ay mbokkam di ko gën a encourager aussi ci liggéey bi muy def auprès de de la première dame madame Marième fay sàll xam nañ ni mi ngi liggéey euh, que li ci des mooy que ñun ñu jàppale ko euh, waa Thiès jàppale ko ñu jàppale le président Macky Sall mu am deuxième mandat incha allah au soir du 24 février